mi ngi commencé jaaxal sénégalais de tribune yéene kaay ne lu tolloon ñaar fukk ak juróom ci ay cas yoo xam ni kon daa positif de ci doonu njàmbur laa ilaaha dama ne la ñaar fukk ñoo xam ni kon ca doonu Touba ga der ak koo xam ne xamul fu ko dëggee ci Ndakaaru Njaaja Jóob gi la Sëriñ Muntaxa de ah daal di ne dig leen kon maanaam ay ñaan alhamdulilahi rabbil alamin président Macky Sall de ba nga woon ca hôpitalu Grand Yoff libération yéene kaay ne l'observateur ne Louga day ak Touba Caaroy ngay toj waar bi fi mu nekk ni nag moo jël bee lu toll ak ñaar fukk ak juróom ñoo xam ne kon am nañu ko allahu akbar laa ilaha moo tax it seenu di Moustapha Diop ministre waaw daal dina leen jàppale de ak lu toll juróom fukk ci ay tonu ceeb juróomi junni ci ay liitaru diwleen ak juróomi tonu suukar ak yeneen i bagage libération yéene kaay ne kii nga xam ne kon fu mu ko dëggee xamu ko de ka communautaire ba Ndakaaru Ndiaye Jël Diop jam nañ ko ko de sous tension ñaar fukk ak ñeenti ci ay doomu aadama direct news de waaye xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne xel daa ca ñoom ne dañoo am jàngoroy coronavirus joojee waaw génn nañ ca la ilaha illallah ah ak ñaar la woon bañ ne cëpp dañ leen a defal des am ci juróom ñoo xam ne kon dañoo positif dañoo am jàngoro jooje ñu jël leen yóbbu leen dalal jàmm la ilaha illallah ña des ñu daal leen confinement daal leen téye ne kon ca lagros ba seen wàllu jeexee ñu defaral ñoo xam ni kon maanaam ñeent la ñu dañoo am kon jàngoro ji lee ñu dencati kon gaañaa ngir contact la waaw waaye benn soxna soo xam ni daa am doole lool lool lool kookee daal moo téléphoné kilifa yi ne leen damay ñibbi par force eh way samba waaw téléphoné yi kon mel ni leen ma la la wax ku ne di woote ne ndaw soosee bàyyi leen ñooñee ñu ñibbi déedéet kay ah kay Pape Jogay Fay ne ginnaaw ga ne kon lañ leen génnee ca la grosse ñu daal di kon ñibbi eh way samba laay laay la la àllarba ji ñu génn juróom-ñetti fan ci avril la wax jaxate nee na waaye ndax wàllu wér-gu-yaramu askan wi lée ndax ëppul doole liberté ndaw soose looloo jara laaj en tout cas président Macky Sall ci tribune yéene kaay de waaw nee na loi rek loi rek nee na xel xalaatul sax ñuy bàyyi nag li xew ci atugee gi lée continuer di fa xew ba léegi ne ay ndaw yoo xam ne kon ña ngi fay dajaloo waaw président Macky Sall ne jàngoro ji nag bu continuer di dajaloo nii liñ doon bañ a def danañu ko def maanaam nit ñi danañ leen bi complètement looloy dëgg grand place de sénégalais ci boppam kon ñooy Sénégal xam ni kon daa def ni ba fees moom la ñu wàatee kon ca keerapes fa ay dawal côté camion yoo xam ni kon ci état d'urgence bi la ñuy profité di ay nit laa la wax doy waar réew mi quotidien ne li waar kay waaw mooy séddale dund gi lée werante ba tàmbali de beetul kenn werante ba tàmbali dama ne beetul kenn 24 heures yéene kaa ne lekk gi nga xam ni kon maanaam ñu koy jël nag di koy yóbbu aide alimentaire ba waaw juróom benn milliard di leen jëfandikoo la wax aa Diop si ne maa ko wax grand place te yóbbu ceeb ya jooyee waaw ñu ne juróom benn milliard Mansour Faye te daal dina koy weddi ba nuppi xam le ne ne nguuru Sénégal kii essence daal nañu jënd wàllum carburant fay chauffeur yi armée bi ci boppam ko dugal ne ci ay camion yu bare bare Mansour Faye yamu ca ndaxte nee na lañ def laalul milliard laa wax aa waaw waaw termine yéene kaay bi nga xam ne def nañ ko ca de ci transport ceeb bi lée waaw kilifa bu dee weddi nañu juróom benn milliard yi bi day waxuñu lu leer de waxuñu lu leer de vox populi ko ah kay Mansour Faye kay benn milliard ak genn wàlla la wax un milliard cinq cent wàllum transport wa tribune yéene kaa ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne bu dee ci Ndakaaru njaay joob gi lée mbir mi amul problème ndax armée banque bi waaw waaye diggante Dakar ak Bakel Dakar Kédougou Dakar Ziguinchor mbir mi la muy saf muy liy jar juróom ñu ne fukk surfacturation waaw mar eh, na ci dundu de lool le bi nga xam ne daal am na ci milliards yi lée ci transportu lekk gii ceeb yeeg yooyee waaw Mansour coowal camion dabati na ko de ay benn waaw benn milliard la ñetti milliard la juróom benn milliard la ñaata la tax critique yéene kaay ne Mansour Faye daal la ñu jox ne ko doxalal habilitation la am moomi de ci ndimbal li ci lekk gi lée mbaadu kii wuutu kilifa gi lée moom la ñuy testé looloo jaralaaj l'observateur ne li jaralaaj kay Mansour Faye Diop si ak juróom benn milliards yi waaw kay Ngunda Fall boobu juriste la nee na waa FMI de bu ñu niilalul bor fukk ak ñeent ci ay milliards deux cent soixante quatre milliards bi ci waaw yi nga xam ne kon seen loxo dafa jot seen ginnaaw nañu niilal bor bi nga xam ne moom la réew yi ndool yi am alhamdulilahi rabbil alamin ndax nga wax ca le témoin yéene kaay ne ñi de waaw mer nañu de lool ndax liñ leen seppi nag ci wàllum séddaleem coowal feebar bi la feebar bi de source a nee na Sénégal daal fi nekk nii ñett am de lu ko mooy rek ay doomam yee dee ca bitim réew gëlaay maar di taali moo tax président Macky Sall ak ministre am Amadou Ba ña ngay njëkkante de ñett yi daal la ñu am bu ñu gaawulee bu ñu jotaatee ci suñu doom yoo yee fii ak juróom jàpp fukki at la ñu suli leen indi leen suulaat leen file maar di taali ñaar ñu lakk leen allahu akbar laa ilaha illa allah wala ñaar ñett te bu ñu leen lakk day ca ab wu tàng jar température huit cent degré Celsius te loolee nag la kilifay Sénégal yi moom mun a xalaat moom la ñeen ñu doon xalaat waaw Seydina Fall Bougazelli daal la ñu ko tuddee Diop Isega def lii waaw Seydina Diop Bougazelli la xale ba tudd <laughs> waaye waaye bébébé nag ak luñ ko tuddee buga buga buga buga buga buga buga nañ jàpp ne pétrole bi moom kenn mënu koo fàtte parce que suul gaz du ko teree xëy waaw